possible mu am ci ndam kon ñoom lii nguur gu jeex la rek nguur gu jeex la rek mm. léegi nag euh, may may araftu nag Sénégal duñu nangu aucune confiscation du pouvoir ñu nangu ñu fausser au peuple son rendez électoral parce que dans vingt-sept jours nit ñi dañu war a dem voté tànn ki war a jiite Sénégal au-delà du 2 avril parce que Macky Sall moom pare na léegi nag may wax ak Sénégalais yi di leen xamal ni ñu nekk ci nguur gi ils ont beaucoup de détermination pour rester au pouvoir parce que dañoo investir ci dëkk bi ay immeuble front de mer bi ay sociétés yu ñu investir euh, seeni doom di jaay oto nguur gi ñu jël tout le front de mer tabax ko ñuy investir ci ay industrie maa leen doon wax keroog West Africa Energy bi war a jaay Senelec courant Senelec ñoom seen clique gi seen cartel bi dégg problème yi fi maître saa Diop soulevé ba ñu jàpp ko tëj te muy dëgg permis octroyé n'importe comment gis ngeen rapport yi nga xam ne soixante treize rapports yi OFNAC transmettre procureur waxuma sax rapport Covid dix neuf kon ñoom perte nguur gi euh, euh, catastrophe la ci ñoom te c'est des hommes d'affaires c'est des milliardaires donc des milliards mal acquis donc ñooñu Euh, seen bakken la ñuy teg ci nguur gi léegi nag il faut que nit ñi tamit am détermination bu ëpp seen détermination ñoom pour jëlee leen ci nguur gi parce que jusqu'à présent jàmm ngi am parce que ñu ngi jëm tranquillement vers des élections mais bu ñu fi defee leneen rek problème day am parce que may fàttali rek depuis deux mille vingt et un ba léegi askanu Sénégal xeexagul de deux mille vingt et un Ousmane Sonko lañ doon sotle ci injustice biñ ko teg juin deux mille vingt trois benn verdict la nit ñi doon contesté moo tax dëkk bi tàkkoon mais ba léegi Sénégal yi gisaguñu. lu leen motiver pour ñu wàcc xeex seen droit donc loolu ñu jàppee woon xeex maanaam mois de juin deux mille vingt trois c' est un verdict qui était contesté euh, détournement de mille de euh, corruption de la jeunesse injustice boobu moo wàccee nit et ça ça tournait autour d'un homme muy Ousmane Sonko ak Linguatec mais cette fois-ci bu fekkee ni dañu nar a léser toute une population bu toog di muñ bu toog di xaar saa yoo ko provoqué muy man xeexuma élection lay xaar élection yooyu boo ko bëggee confisquer wala nga remettre ko en cause je crois que ak ni muy jur dina doon lu kenn mosut ñi jéem a stratégie pour reporter élection wala pour confisquer baatu askan bi euh, war nañ leen ci delloo gannaaw ñi am doole boobu war nañ leen ci delloo gannaaw balaa ñuy teg Sénégal ci tourmente ci ay jiixi jaaxa donc ñoom je disais qu'ils sont très déterminés à rester parce que seeni intérêt moo nekk en jeu mm-hmm. seeni bien immobilier matériel industriel ak financier ñoo nekk en seen i avantage ki puukare ñoo nekk en jeu te ñoom pour rien au monde du ñu bëgg perte loolu. léegi Clédor. oui. li ma a bëgg laaj mooy euh, ci élection yu jëm parce que tamit gis naa benn euh, duma sax gis na naa euh, ñëpp déglu nañ ko moo di Cheikh mu sekk ñu invité woon ko comme ni nga ko waxee woon. sànq mhm. benn plateau. mu def jàngat ba wax ci Bassirou Diomaye mu ne ci élection yu jëm ginnaaw bi ko soo ko doole moom lañ ko xaymaal war na àgg 35 pour cent. mais 35 pour cent xanaa opposant bu ko am kañ loolu am na lu muy signifié maanaam deuxième tour c'est inévitable te ko yóbbu 35 pour cent deuxième tour loo ca teg jàll loolu ndax du du du loo xamante ne dafay wane nañ ñoom ñi nga xam ne ñoo nekk waa Benno ñàkk nañ nguur gi parce que 35 pour cent loolu ku ko daan am euh, ci nguur ñoo daan ci 20 candidats yow ñu nekk war na am pour cent donc loolu est-ce que euh, wanewul quand même que ne euh, les choses commencent déjà à à quand même devenir un peu plus claires laata sax ñuy àgg ci élection yi. léegi yéen yéen mu sekk am na leen parce que sa communication <laughs> mooy jomaay mënul jàll premier tour c'est ça sa communication loolu la bëgg a dugal ci bopp nit ñi mhm. mënut a gagner premier tour parce que boo gisee muy def communication boobu parce que moom am na ay sondage yu wane ni premier tour lay jàll parce que avant ça moom njëkkoon na def benn communication précédente boo xam ne ñu ngi koy vaar xaw ma ndax gis ngeen vaar boobu fi mu naan Pastef euh, premier tour lay jàll waaw ah, léegi tey jii bu ñëwee ni kenn mënu fee am plus de cinq pour cent moom da d'abord dafa péremptoire maanaam li muy wax da koy wax te du ko du ko teg ci dara da koy déclarer nii rek pour nit ñi consommer ko comme ni ko Jérôme consommé ni kon lii dafa wane ni affaire yi mën naa leer contenté wu ci ni kon au moins Diomaye dina dem deuxième tour non fi ñuy dàq une victoire de Diomaye au premier tour lii yëpp nag ay waajël waajal scénario à la malienne yeneen fàttaliku IBK euh, ci élection présidentielle yu mujj deuxième tour la ko opposition bi yóbbu mais dafa sàcc ba gagné parce que amul benn nguur bu mën a gagné deuxième tour une élection parce que deuxième tour dañ lay sot parce que deuxième tour ban alliance le le parti au pouvoir mën a am pour yokk score am au contraire opposition bi kay mooy gën a renforcer wu mais fàttali ni makisal Sall bi muy jàll deuxième tour. vingt six pour cent la amoon en face de Ablaye Wade bi amoon trente cinq pour cent te Ablaye Wade kenn naa tablewul popularité am les gens ne l'avaient pas totalement lâché euh, mhm. comme ni ñu lâché nii euh, euh, Macky qui par ailleurs même plus candidat mais moom deuxième tour soixante cinq pour cent la am xool mu passé de vingt six à soixante cinq Ablaye Wade tout le monde savait qu'il était ancré au pouvoir amoon na sympathie bu rëy ci askanu Sénégal mais deuxième tour dañ ko soppi kon ñoom tey ji est-ce que nekk ñu di lal pexew comme IBK ni mu def maanaam dem deuxième tour déclaré ni moo gagné au deuxième tour. mais loolu est est tamit du mooy nekk li nga xamante ni itam askan duñ ko mën a consommer parce que tey comme comme ni ñu ko waxee su fekkee dañoo nekk ci. pente boo xamante ne c'est l'opposition qui est en de prendre le pouvoir gis nañ ko ci élection législative yi donc est-ce que suñu ñëwaatee fii nii nga xam ne Benno s'est déchiré entre temps ah nga xamante ne am na ñu bari tey ils sont candidats est-ce que loolu tamit du nekk loo xamante ne xel sax mënu ko mënu ko mënu ko xalaat quand même élection Sénégal bu jaaree yoon deuxième tour su dee su dee day am parce que deuxième tour moom da nga koy écarter parce que Diomaye il kooku ay sondage non ay sondage attesté nañ ko te te te day gën a renforcer le camp de l'opposition va se renforcer le camp de Diomaye va se renforcer tout le monde va venir le soutenir ñu bëgg changement dëgg c'est vrai pour répondre à ta question qu'il est ciblé dans cette procédure parce que fu ñu nee corruption rek am na corrupteur eux, ils parlent de preuves. Mhm. donc loolu euh, je crois que yoon bi ñu jël guddal jël la rek mhm. mais ils auraient dû euh, faire une plainte carrément avec les éléments ni ñi xam lan mooy teneuru accusation yi ak gravité accusation yi la commission d'enquête parlementaire c'est très politique c'est pour simuler une crise entre l'institution parlementaire et l'institution judiciaire gis ngeen UMS solidarité woonu génne na communiqué donc euh, le parlement et la justice sur le plan international loolu la ñuy wax voilà euh, assemblée nationale mu ngay attaqué conseil constitutionnel yeneen magistrats yi booloo la ñuy défendre conseil constitutionnel contre kon kon euh, crise la entre les deux institutions mais pour revenir à mon point d'analyse Amadou Ba il est ciblé dans cette procédure te am na benn kàngam euh, boo xam ne aussi bu nar a bett ñëpp hmm. boo xam ne procédure bi da ko ciblé te probablement sax mën nañ ko teg loxo ci fan yi mooy euh, non loolu du wax di gis daal ku am tur koo xam ne hmm. mën nañ ko teg ci fan yi parce que ci ci li ñuy togg lay bokk mais seen pexe ci seen loxo lay lu ñu leen daal seen loxo lay daal seen dara du sotti sànq fii euh, ligne bi coupé mooy fi may préciser mais à partir de samedi les données vont changer on sera en pleine campagne électorale kenn dootul mën a tere kenn mu wax kenn dootul mën a tere kenn mu manifester benn candidat mënuñu ko poursuivre